sëñ bi gis nañ ni ambulant yi bëri na ci buntu foire bi yéen ñi nga xamante ne fowkaayu xale yi ngeen di jaay est-ce que sonalu leen. waaw pas tellement sonal mais xam naa bu mënoon ñàkk nag moo gën quoi parce que gars yi dugg si biir jënd lañu bëgg Sénégal dafa bëggul yomb quoi moom fu mu fu gën a yombee rek moom fa lay dem daf xam rek jënd dem ñibbi quoi. mais bu sax nag ñun ñëpp ñu dugg si biir xam nga ñu jaay la ñu delluwaat waaw parce que ambulant maanaam bëri ñun ñoo leen jaay bagage mais xamuñu woon si biir jaay quoi. kenn ku nekk sa wërsëg rek ñii dañoo jënd place ñii jënduñu place xam nga kenn ku ne sa doole ngay demee ñoom xam naa yàlla da leen may ñu yem ci bunt bi ñun yàlla may ñu ñu dugg ci biir mun na am déwén ñoom ñu am place pour dugg comme ñun rek ku nekk sa wërsëg rek. ñun sonal nañu bu baax a baax a baax. sonal nañu lu bare bari parce que yaakaar ne aussi tamit gars yi ñoom ñoo deful seen liggéey ni mu waree parce que bu ñu defoon seen liggéey ni mu waree ambulant du bari ci parce que mënoon ne ci biir sa place pare ambulant bi ne ci biti di kon gars ñoo deful seen liggéey sonal nañu torop sonal que yow boo duggee ci biir jënd sa standard jënd sa place war a jaay fukk boo génnee ci biir da nga koy juróom te lool c'est pas normal kon gars yi seen liggéey uh-huh. mais yéen a ngi gis seen bopp ci foire waaw ñu ngi sant ko bu baax ñu ngi sant Bamba bu baax a baax parce que yaakaar naa ne moom nit ku nekk moom saa yoo xëy di nga jël sa wërsëg ñu ngi sant bu baax a baax ñu ngi sant bu baax a baax ñu ngi sant yàlla bu baax rek ñun moom xam nga ay tuut tànk lañ dañoo bëgg a yegg ci kaw ni ñëpp rek yéen ak ambulance ñoo gën a yombale ah ñun ñoo gën a yombale parce que ñun en la ñuy jaay boo ñëwee ñu jaay la comme benn benn pièce 1000 francs euh, par en yow ba nga jaay nga jaay parce que ñun moom duñu yokk loolu la ñuy jaay pour gars amal ci dara quoi ba amoo jafe-jafe ci biir foire ren bi. waaw jafe-jafe yi moom du ñàkk parce que des fois tamit am nga def mooy loolu daal sant rek parce que des fois tamit nga dem ba placé wu xam nga waaw foire bi wala centre moo la kenn ñëw jaale prek du si ñàkk quoi mais rek ñun ay góor yàlla dem nañu fu ne loolu garaawul noonu nañ ko gérer quoi et puis si réew ñan ñoo leen di sonal marocain yi yéen kay yéen a war a sonal marocain mais pas marocain yi di leen sonal. ba ngaa dégg dëgg maam ñi fi dëkkul ñooñu gën a nekk buur si dëkk bu ñu juddoo yaroo fi ñun hmm. Euh, barke dem dama gis benn action moo doy waar parce que gars yi bu ñu dugg bats dañ leen tere quoi ma gis benn naar ñëw benn gars ma njëkk ñëw gars mi ne ko eh puusal fii parce que na le léegi euh, ah, xaw ma rek xaw ma làkk ay daadaa quoi gars ko waa ñëwal dugal te bu sori ba ama xaalisam day dem dëkkam lekk ko fa ñu bu ama xaalis fi bi quoi ok a wax a jeexale loolu dafa gaaw a jeex parce que comme tant xam nga rek Sénégal dafa bëgg dañuy néewal doole de trop daal parce que sérieusement parlé réew mi euh, ñoo bëggantewul daal ma xaw ma lan la parce que ñun comme ça ñu nekk si dëkk si réew mi ñoo bëggul waa réew mi loolu demee quoi.